ñëpp sax war a mën jomm yëkkati kàddu yooyu. Mhm. mu mu mu jugee nag surtout ci ñi nga xam ne mooy autorité état bi. Mhm. parce que xam nga lu tax dafay justifier encore une fois que ni ñoom nangu nañu ni un simple citoyen un citoyen sénégalais. bu ñuy mhm. wax Ousmane Sonko kon mën na plonger Sénégal ci kaw. loolu nag seen responsabilité la man pour man c'est pas du benn raison boo xamante ni tey war na mën a tax li nga xamante ni. moom la ñu ma def muy institut bi ñu bëgg leen ko baax te li ñu wax mooy dañuy interdire lépp loo xam ni manifestation la ci voie publique mhm. ñoom voie publique lañ wax léegi interrogation bi mooy ñoom la ñuy def defee wuñ ko ci voie publique stade Amadou Barry stade Amadou Barry lañ bëgg a def te la ñu bëgg a def itam loolu loi bi daf ko protéger loi bi daf ko garantir te suñu ay droit itam daf ko protéger mhm. parce que parti politique le PASTEF c'est un parti politique légalement constitué te dañu ni dañu ni parti politique bu ne mm-hmm. sañ nga organiser wu ngir lan ngir am yéene yu participer ci li nga xamante ni mooy fonction institution yi no seulement loolu mais mën a fexe itam nga accéder au pouvoir mais pour nga accéder au pouvoir mais il faut nga def investiture bien te ñoom def nañ seen ay primaires yàggul dara génn wax ni ñoom euh, samp nañ ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko. Mhm. léegi nag mooy li ci des mooy rendre populaire li nga xamante désiré nañ nañ ko à rendre ko populaire. Mhm. man pour man autorité taxawuñ fenn fu dëgër foo xamante ni war nañ mën a wax ni rassemblement boobu warul mën a te lii nag wax dëgg yàlla ñu ngi wax ni Ousmane Sonko dafa bëgg a mi ci kaw mais lii nii nga xamante ni sabab nañ ko to wax ko. Mhm. man pour man yu mel nii. a quoi qu'on dise aussi mënuñu ko nangu xam nga man souvent dafa am loo xamante ni dama koy faral di di di viser fii wax naa ko fii je parle sous le contrôle de de Lamine du président mm-hmm. Mm-hmm. gis nga élection élection élection mm. ci lañ jëm te enjeu bu am tout à mais damay wax ni élection bokk na ci mandarga yu mujj démocratie mm-hmm. ça ne veut pas dire que élection am na rek président wax na génne na ne élection day am démocratie réew mi vraiment ñu ngi ci démocratie hmm. parce que élection dafa am lu ñu fa war a yóbbu dafa am ay mécanismes yu ñu fa war a yóbbu dafa am processus bu ñu fa yóbbu mais lenn ci processus yooyu boo ko violé rek yaa ngi bëgg a installer leneen dul lu dul démocratie hmm. parce que dëgg la dëgg la souvent les gens dañuy am tendance di confondre li nga xamante ni mooy république ak démocratie dëgg la nous sommes dans une république mais est-ce que dans une république démocratique parce que république mën na bañ a nekk démocratie aussi hmm, ñun suñu réew mi dafa jox mu jot nag ñu taxaw seetlu nag ndax réew mi tam bu fekkee dafa bëgg a installé wu ci dictature ñu wax ko nit ñi parce que lii ma gis nii lenn lu dul personnalisation du pouvoir pouvoir boo xamante ni dañ ko installé président Macky Sall moo njëkk a yëkkati kàddu avant lii di am yëkkati ay kàddu jëmee ci investiture parce que nee na lii c'est une provocation kon ça tout simplement que ni Ousmane Sonko moom mën nañ jot ni moom boolewuñ ko ci li nga xamante ni mooy élection présidentielle yi ñu dem donc daal man jàpp naa ni. jusqu'ici on a on n'a pas reçu de note buy euh, euh, firndeel ne. ma euh, dafa inéligible. et puis c'est ça aussi moom moo ñu xaw a xaw a jaaxal en fait ci ci ci mbir mi kon c'est un leader d'un parti politique. bu constitué légalement et que aujourd'hui dafa war les activités ci ni mu waree mais maintenant est-ce que aujourd'hui encore une fois la question va revenir raison yi nga xam ne joxe nañu ko évidemment euh, dina mën a tax ñu ne euh, voilà le gouverneur moom li mu joxe comme alibi euh, tegu na ci yoon am déet. waaw xam nga dañu parti politique non seulement dafay former wu mais mën a exercer aussi ay activités librement ñu yokk si ni tout en respectant le principe de la démocratie et de la souveraineté. Mhm. xam nga li jar seet ba seet ko ak interrogation bi mooy li def est-ce que tegu na ci principe de la souveraineté wala tegu ci ay démocratique mhm. je pense que li ñu war a def ñoom def nañ ko introduire nañ si demande de de de de rassemblement introduire nañ ko donc nag li ci des mooy man wax dëgg te loolu dafa bokk si processus bi waroon nañu leen mën a mën a bàyyi ñu def li nga xamante ni mooy investiture. parce que Ousmane Sonko taxaw ni candidat la loolu taxul mu doon candidat. beneen candidat taxaw ni candidat loolu taxul nga doon candidat. Hmm. donc candidature ñoo koy prononcé ak ñoo koy firndeel. Hmm. xam nañ leen. donc nag pour man moo tax am na loo xamante ni fitna bu ko kenn Mhm. te dafa bokk ci li nga xamante ni dafa yee fitna te encore une fois pour daaneel damay waat ni le gouvernement du Sénégal volonté bi nga xam ne daf ko yàgg affiché pour bunduxataal ay homme politique digne de son nom ba léegi logique boobu dafa mel ni dafa nekk di ko poursuivre. très bien kon nag lu ñaaw la loo xamante ni man wax dëgg yàlla. rafetluwuma ko. Mhm. Mhm. et dama jàpp ni wax dëgg yàlla ñu leen mën a bàyyi. ñu daje stade Amadou Barry pour def li nga xamante ni mooy seen investiture. très bien alors Pouye Euh, naka nga jàngatee cette situation ni un parti politique bi bëgg a def investiture euh, parti bu nga xam ne euh, ràññee ko noonu ci ak dayo ak ci taxawaay bëgg jël seen leader investir ko comme prési candidat à la candidature ci présidentielle 2024 certains me diront que c'est c'est dans l'ordre normal des choses et c'est très mal mais gouverneur bu Dakar da ko aaye aaye bi nag mu tënk ko ci parce que tout simplement le leader du parti dafa am kàddu yu mu yëkkati woon euh, wax ne euh, euh, dina maanaam promettre na kaw ci réew mi donc est-ce que aussi cette décision mën nañu ko layalee kàddu yu gouverneur yi yi mu yi mu wax ne Ousmane Sonko ko yëkkati ba mu tax moo tere investiture bi nga xam ne investiture bu am solo la ci parti politique bu bëgg a dem jongante élection présidentielle 2024 effectivement man bi ma ko déglu aussi. Euh, toog naa xalaataat lu bari. Mhm. ci doxalinu démocratie daal. parce que bu ñu renforcement wu démocratie wala démocratie boo xam ne démocratie bu équitable. Mhm. lu Masamba def. ñu ko ma dem war na def ñu bàyyil ko ko. là je parle en mhm. les partis politiques du monde dañ koy def. Mm. Euh, je crois que Pastef. c'est pas la première fois mu def ay investiture je crois bii la mos a woote investiture gars yi euh, administration sénégalaise bañal ko ko euh, boo seetloo ca njëlbeen daana def investiture hmm. investir kandidaawam bien sûr élection yi mos a am ndax bokk na fi sax élection présidentielle bokk na fi élection présidentielle bokk na fi élection nangam ak nangam du benn du ñaar hmm. ba jaay élection locale investiture yooyu ñëpp xamoon nañ ne dafa am nu ko lu lu ko wundoon mooy politique boo xamante ne amul lu ci jiitu woon muy langage kaddu dañuy xool lan moo andi différence ba mu doon ba Pastef doon woote investiture ñoo ko koy nangul ak Pastef bi woote investiture tey lan maa xew ci diggante bi am na lu xew ci diggante bi. am na lu xew ci waaw lan moo xew ci diggante bi ci diggante mooy boo xoolee depuis le mois de mars. 2021 mhm. su ma juumul. Mhm. discours Ousmane Sonko. dafa nekk discours yoo xam ne heure bu ko déclaré rek après lii topp naaw discours yi fitna dina am saccage dina am Sénégal di nekk dans des eaux troubles ba ci ay mort di ci am mm-hmm. c' est pas la première fois c' est pas la deuxième fois bu demee ba ci biir sax day jàmmarloog état mm-hmm. kon tey su toogee waa pas laajte investiture man li ma njëkk a jaaxal bokk na ci investiture candidat bi dañuy woote ni milieu tous les militants daje fa n'est-ce noonu lay deme on dit candidat mais bii ay regroupement divers la Géejawaay Grand Yoff Parcelles euh, Pikine xaw ma ak fan ak fan dispersion boobu ñu dispersé wut ay lieux yu stratégique mm-hmm. pour dafa ay rassemble investir leur candidat tamit man ça me problème mm-hmm. ça me pose logiquement mm-hmm. ci benn mille la ñuy woote benn mbedd benn stade dajale tous les militants. bien sûr mais là le Pastef choisit des milliers stratégiques ñu bëgg faa def ay investitures yoo xam ne day différent ah oui. yooyu am na ci. lan lan ngay dégg milliers stratégiques. non li ma jàpp mooy tey. parce que stade Amadou Barry euh, c'est pas la première fois politique on se rappelle euh, de Bougane Gueye bi woote foofu stade boobule euh, mu fees dell ci euh, bon je sais pas si c'était un meeting d'investiture mais je pensais que oui ah, est-ce que est-ce que on peut parler de mille stratégies choisies par le parti si on sait que ne leader yu bëri euh, yàgg nañu dem déggoo du stade mhm. dañoo joxe rendez ci stade mais au même moment joxe nañu rendez-vous Grand Yoff joxe rendez-vous Guédiawaay joxe rendez-vous pour def fa ay rassemblement loo xam ne day méngoo ak investiture bi man loolu laa wax. Mhm. pàcc pàcc ñu pàcc pàccal à part stade bi à part stade bi war a dajaloo ñoom ñëpp investir seen candidat. Mhm. ci même moment bi dañoo programme tamit rencontre rassemblement Grand Yoff programmer rassemblement Guédiawaay euh, Pikine programmer rencontre rassemblement par et cetera et cetera. man loolu laa wax ne pàcc pàcc yooyu ñu ra ñu programme pour le rassemblement. loolu laa wax ne. administration du Sénégal moom est-ce que xool tamit ci loolu. bu fekkente ci biir stade bal hmm. la ñuy dajale seen i ñoñ. Hmm. ils ont la le plein droit et la légalité démocratique d'investir leur candidat. mais tey dafa am benn mbir bu am. ñu ngi wax naan defuñu ko ci benn ci stade dañ ko def mais hmm. après institut bi. mboolo bi bu ñuy ñibbi. man damaa jàpp ne administration Sénégal conséquence boobu la mesurer. et pourtant Kër Massar jaar na fi. Euh, li nga fa wàññi woon ci ay mbooloo takk na lool ginnaaw ba mu fa meetingee Ousmane Sonko et ses militants. Uh-huh. ba nu nekk dafa dem ñibbi bërëb ba sax ñu seetal ko est-ce que kon nanu tënku ci après. meeting d'investiture li xew mais mhm. boo jëlee le dernier discours de Ousmane Sonko. Mhm. su ma bokkul élection. le pays ingouvernable. Mhm. dëkk bi day tàkk. danañ ko taal dafa am discours bu radicalisé boo xam ne tey un état une république waxuma la politique état du Sénégal en tant que république dafa am devoir ak droit de la sécurité ça c'est des gens des hommes n'importe qui et de, et leur bien et de leur bien discours yooyu bu ne état mu neex ko day jël les devant mu naqari ko day jël les devant des discours yoo xam ne c'est pas des discours apaisants c'est des discours yoo xam ne fitna bu nekk parce que boo bëlee ku nekk nga naan dëkk bi ndar naa tàkkat kon état du Sénégal bu fekk na engagement en tant que république que ne ñoom bu ñu paree investiture par rapport ak tour bi hmm. lu ne mën naa xew mais état am na droit sañ-sañ jël ay matuwaay pour aar kanam aar sénégalais moo tax ma ne la boo jëlee investiture yi Pastef doon def Ousmane Sonko mii seen candidat di am benn bras de fer avec l' état daawul am interdiction d' investiture mais dafa am benn bras de fer bu am entre Ousmane état du Sénégal. Hmm. damay toog fi benn jour ma ne Ousmane Sonko amul problème ak le président Macky Sall la preuve tey bu fekkee condamnation am na état du Sénégal moo ko condamné à travers la justice.